te sëriñ bu sëriñ dëgg day toj sa xol bi def ci leeru ne nit bu nekkee fu mu nekk fu yàlla lan lay tudd day nekk ci leneen loolu muy nekkoon fa di tudd yàlla ko gën ci moom nit fu nekk te du déglu yàlla day déglu leneen loolu ngay déglu nekkoon fa di déglu yàlla moo gën ci yow nit fu mu nekk te gisul yàlla gis leneen moo tax sëñ Mbay Jaxate ne ku gis yàlla du gis boppam te du gis moroomam te du gis dara bay wax waxi dara lii mooy dëgg lii mooy cosaanu murit kon du sunuy wax wax ji ma ne sëñ Tuubaa ko njëkk a yëkkati inna allaahi minallaahi ay na muridillaahi ci yàlla laa jóge ci yàlla laay dellu ana jàmbi nam ma dem ci sunu borom lii la sëriñ Tuubaa kon képp koo xam ne nii bëgg nga dellu woo na la moo tax Cheikh Moussa képp ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp dinaa la yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko te bàyyi ma sa bopp la wax waxul ñi nga xam ne dañuy dikk ba pare dikkuñu ñi dikk te dikk la ne wax ñi nga xam ne dañuy ñëw ba pare ñëw waaw waxuñu ki dikk ba pare te dikkul ki dikk te dikkul mënuñu ci moom dara mënoo ñëw ci docteur ne dama bëgg a faju bu ne la kaay pikiru nga ne duma ma def pikiru kaay naan kombiré nga ne duma ko naan te ne dama bëgg dem ci dëkk boobu ñu naan wér gi yaram suñ waxee nga génne ne docteur bi xamul dara yaa fajuwul yow yaa fajuwul waaye docteur bi moom la may xam mu ngi koy xam ba léegi te ay garabam mu ngi koy yore te boo bëggee faju di nga dégg ndigalam di nga bàyyi ay tereem su nee la bàyyi xorom nga bàyyi ko su nee la lekkal nangam nga lekk ko lan moo tax dangaa bëgg a wér noonu la rek kon diggante sëriñ ak taalibe jaayante la goo xam ne da ngay dégg ndigal bàyyi tere su ne la bàyyil nga bàyyi su nee la defal nga def fekk mu ngi lay teg ci yoonu yàlla fekk mu ngi lay teg ci yoonu yàlla bu la wonul boppam laa la wax te yàlla rek tax mu la koy mu lay won yàlla rek tax ma ne sulu la da nga wara def bu la teree da nga wara bay bàyyi te sëriñ nak dara nekul waral nek yitteem lu dul jam ci yalla du murit du tidian du khadir du layel waw sun taxawee fi marsa njaareem marsa njaareem ñu taxaw marsa njaareem wa marsa njaareem ne yoonu sëriñ Assane baa ni wa waa Assane ne yoonu marsa njaareem baa ni mané marsa ne momut yoon bi sëñ Assane momut yoon bi murit moomut yoon bi tijaan moomut yoon bi yoon bi yoonu yàlla waaye fu mu nekk amal fullaak fayda dem jëli ko ndax sa la lii la Cheikh Moussa woote ku ko jël si jël si sa njëriñ ku ko bàyyi bàyyi sa njëriñ waaw ñu ngi wax rek eh, dani woo ak kon ku ko jël si jël si sa njëriñ ku ko bàyyi bàyyi sa njëriñ kon nak la sang bi wax day dagge xol dëggale wax jagali jëf te kuko wax jarignu fi ak fanu jëm mune li ma Bamba wax ma diko deg kum ko wax nga diko deg dégg lim ma yëgal ma di ko yëg ko nga diko yek lim ma won ma di gis kum ko won nga diko gis ku yalla won bopam nga gis ko ku yalla yir bopam du gis ñi di gis ñe duñ ko gis moy ñiko ko ak ñiko ham xam mooy ñi ko réere ak ñi ko xam kon njàmbe bu ne gis yàlla njëkk koo wax Cheikh Fall mi ne bët day bët yàlla mbaa jàmm nga am nag maam limaamu ne ku ñëw ci ku dem ca maam limaamu kuy saxoo laa ilaha illallah ba dem ci limaamu mu won la buur ba kuy saxoo laa ilaha illallah ba dem ci limaamu mu won la buur ba buur mooy lu daj kàpp lu manqué wut fenn loolooy buur boo ko bëggee dégg tool bi buur na mooy boo tool bi mat na sëkk yàlla dongoy buur nag yàlla nekk fépp di lépp dara mënu koo nëbb moo tax Cheikh Moussa ne ku ko gisul ci say bët la waaye jaww ji ne fang ne fang kaay ma woon la jaww ji nga ne gisuma ko mu ne ku koy gisul ci sa bët la waaye nekkul ci jaww ji jaww ji moom mu ngi fi mu waaw yàlla dana fàng dara mënu koo nëbb moom moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëbb kon nag kun raxasul sa xol xol bi du mën a xool yàlla xool dañ koy raxas ba mu set bàyyi ko mu mën a xool yàlla su dul loolu ay lëndëm rek lay gis te loolu musiba la musiba la ndax yàlla daf ñu fi indi ndax lan bo gisee musiba yi yépp di am ña xol yi ñàkk set la rek siisante yi di am xol yi ñàkk set la rek xol bu xol bu gisut yàlla rek day gis leneen parce que bu ma gisut yàlla sama morom lay gis su boobaa gisatuma yàlla su ma fekk yow maa ngi lay gis di la di la seetlu di la lijjanti gisatuma yàlla am de xol bu gisee yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax gis nga gis yàlla ñu bari sax dañ koy tuddu waye pour ñu dund ko sax problème la parce que gis yalla makama bu ñu dund la gis yalla makama bu ñu dund la foog nga liggéey ko bam tok ci yow nga koy mëna a dund du baat bu ñuy wax rek du baat bu ñuy wax foog xol bi toj yalla ne ci ba xam ne do mën gisati lu yalla do do mëna xamati lu yalla su boobaa xëccoo àdduna day jeex ci yow ndax Cheikh Moussa nee na ku xëccoo du noppalu kuy fayu du të kuy tooñ du mucc bu leen xëccoo bu leen fayu bu leen tooñ mais sharia wa ngoongu loolu lu ko gën a yaatu ci dundub jaam daa am sar ko toog ci kenn du la gën a yaatu ci àdduna dangay ngay noppalu da ngay féex te féex dëgg-dëgg gis nga espace bi du yaatu yaatu bi de xat-xat bi ci xol yi la du espace bi mooy yaatu yaatu bi dëkk bi déedéet yaatu dëgg dëgg yaatu yaatu jaam aqiqatan buñ ko dee wax xolub jaam la xolub jaam bu attanee set sel day mën a attan lépp day mën a dëkku yàlla te yàlla tax day mën a dëkku yàlla te yàlla tax te dëgg dëgg jullit foofu lañ koy xaar deug deug julit foflan lañ koy xaar li wara suñu sunu bañante bek sunu sisante bek sunu kiñaan gi lepp suñu xol tilim yi rek la kon nan seti cheikh ma rabbi bi mi rabbi ila allah tarbiya tasfiya tarxiya day meuna a raxas sa ruu gi ba mu set wetch delloo ko ci yalla wacce war na ngay ak te do ngay meuna di dox te do jami kon sang bi say kawena rafet na set na sell na képp ku am nopp tey dégg wax dëgg yàlla boo ko déggoo dégg sa njëriñ waaw li fi Cheikh Ibra wàcce képp ku am nopp tey déglu tey dégg ndax dégg ak déglu duñ benn déglu ak dégg ak dégg-dégg sax ba tey duñ benn ñett la yu bokkul ndax mën nga may déglu te doo ma dégg lu ma wax day jaar fii rek génn dem yoonam da ngay déglu rek day mel ni benn lante noor rek du tee diw lu nu sotti mu génn dem waaye kii dégg boo waxee dina dugg dina a ah, dégg naa dégg tey waaye ki am dégg-dégg kooku dafa am faca dafa tijjeeku kooku boo waxee sax day dox ci say wax di ci gis loo ci dul gis yow di ci dégg loo ci dul dégg di ci xam loo ci dul xam ci say biiru wax yow kooku moo am dégg-dégg yàlla na ñu yàlla may dégg-dégg yal na ñu yàlla may dégg-dégg. Nama la ilaha illallah. Adiya Cheikh Moussa Aya. Cheikh Sëñ Alim yàlla yokk wéram guddal fanam njabootu Cheikh Moussa gi yëpp ca daaru ak fu taalibe nekk ñu ngi leen di ñaan lañ fa nekkee eh. yàlla ya na barkeel yàlla ya na lépp barkeel te dellu ci ngërëmu yàlla. Ya bu ne isil muridu laa yuridu abada xayru rida rahmaana ay sa xasada kon nag war nañu rafet njort ci usine kon xaarifina billaahi kon war na rafet njort bu murit amee loolu kon xaarif billaahi nga xam ni moom ci biir murit la maa murit buñ taw yi ba defaraat ko ba mel ni jamaa nga xam ni moom rus na dellu ginnaaw rus naa dellu ginnaaw bu rafoon islaam ba islam jeex ñu màpp ko moom mën naa taxawalaat islam waaw pas-pas boobu mooy nekk ci aarif billaahi kon nag bu nu yàlla yeggalee foofu kon man sant bu baax ndax bu ñu daggee jëng yi ab picc boo ko takkee muy naaw du dem ndax yaa ko takk waaye boo daggee jëng yi day naaw kon képp ku dox sa digganteeg li la téye ci suuf li tax te buñ nee suuf nag jikko yaa tax ñuy wax man suuf du suuf si ñu taxaw yéen a yëkkati débat yi ba mu yegg foofu maa ngi leen doon wax ci sama cant di leen wax ni na ngeen moytu aarif aarif du taxaw Arif day dox Arif day yëngu xamul kaw xamul suuf nee naa leen day tagga tembe wax bu nekk rek la ca jublu la wax ba ëmb am solo le verbe le sujet le complément moo tax fépp foo xam ni daje ay xaarif daje nañ fa thème bu ñu indi ku li ma ngay yëkkati yëkkati ba ka ca teg ex day mel ni racine bi ak tronc bi ak feuillage bi boo ko dajeree rek allah bu ñëw na waaye nag niñ koy doxe di ko yéege ba matale yàlla allahu loolu mooy dox te mooy dox ci yàlla amul tàmbali aw ma tàmbali fii ma toll ndax damaa fekk ngeen defar ba mu noppi moo tax damay ñëw sant rek damay ñëw sant leen rek ndax yéen a ma branché mii ba ma mën a génn lii waaw li ma bëgg mënu mënuma koo sax wax sëñ yow moom dama lay gërëm waaw kii moom day sama lépp fu ma ko fekk dama ko naan yàlla na nga gudd fan soo guddee fan rek lépp ñëw ndax am na ngërëmul sa baay ma dégg ko nga am ngërëmul sàng ñaan ma dégg ko mu wax ma ko nga am nag ngërëmul bu saa ndax ku am ngërëmul ka am nga ko joxe ngërëm ya am nga ngërëmul kon na la leer ne am nga ngërëmul Serigne Touba yi am na ngërëmul yeneen bi te yàlla gërëm na la ndax sa xol dafa rafet sa xol dafa sell day gone goo xam ni li mag ñi yor lañ ko def lañ def ci moom ndax dama ko wax ma ne ko sànni ñaan na def attention ci moom ni mu liggéeyee la Cheikh Moussa wet gi mu ko jaar ci bëgg am na sëñ sëñ Cissé fi mu jaar Cheikh Moussa euh, bariwul ñu ko fa jaar moo tax Cheikh Moussa Bakar fekk na ko loo xam ni ku muusul tamit doo ko mën a jële ci sangi ñaan nee naa la sangi ñaan dootuma ko toppee ngir xam-xam ndax weesu na foofu xam nga dafa am xam-xamu dira xilmu ak diraaya ak xinaaya diraaya soo ko yoree loo gis xam ko xinaaya soo ko amee <laughs> loo bëgg am ko <laughs> dangay am sañ-sañ waaw day am sañ-sañ yàlla li mu yor da koy joxe waa àjjana kun fa yakkoon mooy seeni kuddu fii kuddu yi or la ak xaalis ak përëm waaye àjjana kun la fa yakkoon mooy kuddi bu ñu yegsee rek kit bi li ñuy wax kit comme li ngeen di wax table nii joxe bu ñu ñëwee boo duggee àjjana rek dañuy teg kit kun fa yakkoon waaw loolu ngay soog a xame yow ndeke dugg nga àjjana loo bëgg am ko waaye yaa ngi koy amee ci yaa ngi koy amee ci lépp baax na lu am baax na lu am baax na ci loolu ngay amee ku di waaw te yow foofu nga ne lu la seex bi lu la seex bi teg nga nangoo waaw tawweeku nga tawweeku nga ba deseetoo dara ba yàlla joxaat la yeneen yeneen der waaw faawu der bu njëkk bi day xubbeeku arif day xubbi ko téeméeri junniy der lay yor waaw der bu nekk nag pay la ngërëm la waaw waaye ngërëm mu leer moo am solo waaw doo soxla woo sax ku la fay

kenn xamul lu ci ne mu dëjj ko ruuj ko defar ko def ba noppi defar fa ay ay ay ay dëkkuwaay defar fa ay dëkkuwaay ba mu baax ba foo gis mën faa na toog ay lal ak lépp bu baax dëkkuwaay yi lu lu baax ci dëkkuwaay rek ma nga fa sëñ Tuubaa gërëm mu dem Cheikh Moussa nag ñu ñëw ca dëkk ba def fa ay dof def fa ay ay njaalookat def fa ay surga def fa ay militaire def fa ñu baax def fa ñu bon góor jigéen mag ak ndaw reykatu nit brigand wàlliwu lu ne lu def ko fa dana doy waar de ba noppi nañ yàlla ñëw ne ko defaral ñii te bu ma dégg coow ku doon jaayi ramba looy jaay rek ki nekk jamono ji wan na la ko ba ci fin bi ñu doon politicien euh, les avocats ku doon jaay xel di jaay xel réseaux sociaux yi noppi nga ku nekk ngi làqatu léegi ndax sikk yaa ngi feeñ moo tax bu ñuy wax réseaux sociaux yi naan nañ ko tëj wala bu ko tëj <laughs> parce que yàlla mooy feeñal du du yéen du ñoom awal aaxir zaahir baatin kon baatinu yàlla mooy moo jot fi moo tax jarut a dem di lay ak a fe ak a leeral ak a setal sa bopp ko man lu ma def je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 suma salaatu wa salaama ala man bil kitaabi wa sunnati taharra muhabbihi min jumlati rasaili kama bihi ma jamalahum bi jumlati fadaili wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yowma lasi yurfahu fihi kulla sahidin si salah wa yuqfadu fihi kulla saqiyin matrudin anil falah suma ama baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bi nu sante yàlla kañ ko ci màggam googu ak wéetam boobu julli ci sangub sang yi sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallama moom mi nga xam ne ci alquran ak sunna la leerali dënni kuréelam ba ñu tekkeeku waaye ci alxuraan ak sunna la leen takkale médaille yu ngëneel ba nu mën a buur jëm ci moom subhanahu wa taala eh, di len nuyu Islam, islaam nuyu wa waa aljanna waaw bu don nuyu arab la da nga nan sabahul khairi wala nga ni masahul khairi bu don français def na bonjour wala bonsoir waye li wa aljanna muhammad sallallahu taala Wasallam sallam ko aljanna ñew jox ñuko kon talal nañ len ko yal nañ ko yàlla boolewaat aljanna waaw te liko ko ku baax ki waxe rek fii la waaw loolu mooy saxadatu daara aljanna day tàbbi ci ñooñ Cheikh Moussa waaw nit dina tàbbi ji aljanna waaye borom jamono boo dajeeg moom aljanna mooy tàbbi ci yow loolu gor yàlla yi gindeeku nañ ci moo suñu borom dafa am ay dex yoo xamante ne da koy berndee ay nitam bir aljanna moo tax nga ciy xool nit muy naat coow li topp ko te moom mi ngi gën a naat parce que dañ ko branché dexu ndox gi muy naat ndox moo moo moo naatal lépp nga gis ko mu deñ naa féq ñi ma dëgg lan moo tax dafa fekk ni xakk saa mi ngi naan ci dexu lem gi te lem day faj faj na ko ci naa féq ba mënatoo koo gis mu dox lu dul dëgg ak njub ñooñu foofu la Seex Musaa di yóbbu góor yàlla yi ci seen texeg biti ci loo mën a teg sa loxo nga ni lii texeg biti la xakk nga gis mu doon ko am kattan ci am xel lumu la wax nga ni waw munoo fexé ba nat ko ci dara ndax lan dañ ko branché dexu soow gi te soow day maye katan ci pay yalla bi nga gis ko muy contane foko fek fekk muy bëgg nga gis nit ñi ni ñuy bare ay ndambat ñom ñuy mars di jang baatu la ilaha illallah di sikkar di dem mu wër la ne ñii seen dund ñoom yëguñu amuñu problème lutax parce que dexu sangara gi lañ leen branché ñuy contane moy taxé biti waye nga tollu ci ko xamante day joge day joge ci ab ab serignam di jambat problème dekk bi ni dekk bi ni xol bi di ñagas safara la jëm borom xol bu borom xol bu gëm ak borom xar kanam bu gëm borom lamagne bu gëm borom loxo bu gëm ñi ñoo war gay texee di kon sante yalla war nañu li nak lan moonu nu ko may moy le Serigne Touba dajale won mbolo mi ni len denk na len ngeen delu ci yalla delu yalla ci delu yalla delu yalla gu set. delu yalla gu set moy lan nit ki wërta togn bopam nit ki wërta togn moroomam waye nit wërta togn boromam ndax nit ki budé togn bopam da fay waral yalla tëj buntam bi ba du meuna ag nit ki bu dee tooñ moroomam dafay waral yàlla di teggi ay ay ay ay yiwam moom di ko dolli ci ay yiwam ndeem sàgganul waaye bu fekkente ni moom am na yiw mais bu amul yiw day dem ci balaa yi war a topp góor yàlla gi nga xamante ni tey moom la topp di ko tooñ xakk bu boobaa ñuy teggi ay balaa am di ko ko teg loo moo tax tooñ tooñ la tudd daana dal saxaaba yi wa isaa maro bihim yataxaamasoona wa isaan xalaboo ilaa ahalimul xalaboo faakihina wa isaa rohum xaaloo inna haulaahi la daaluuna wa maa ursilu alaykum alayhim hafisina saxaaba yi dañ daan toog ba caa ñuy dox biir màkka gars yi di leen wokkante xooleen jaahili yi di leen wokkante yataxaamasoona te waysaan xalabo ila ahlimum xalabo faakihina dañ leen naan inna haullahi la daaloona gars yi dañoo réer wa ma ursula alayhim haafisina kenn yebale leen ci ñun ñu nuy waar waruñu wax yàlla lii lañ daan wax sahabatu rasul yi moo tax Cheikh musaa daa wax ne lu bokk nuroo waaye nag war gi nu war Serigne Touba ci jamono jii nga xam ni dafa waxoon ni wa ahlamoo anna kulla man raaytumuhu fi haasihi samaanu fa huwa min al muridina al muridu xismayni mu ne ñaari xaaj lañu xismu awalu allasina aslamoo lillahi wa li rasulihi ñu jébbalu ngir xeñtu sunna si yonent bi ak àgg ci yàlla wala sina aslamoo li ruhyatil yubna wa nihma am na ñoo xam seen ak jébbalu lan moo ko tax nee na jàpp ndal gi waaw jàpp ndal gi sol sa ngandam mbubu ni lépp ci bàmba ji loo jekk dóor mu dem nga ni xéewal ak sëriñ bi la ñooñu ñoo àll si na aslamoo li ruhyatil yub na wan ma mu ni almuridu na ki nga xamante ni yàlla rek moo ko tax a jóg mu ni fii ibtidaahi islaami yi ka sab yi la si xaraja min ni ummi yi nee na kooku jàppe ko gone guy door a juddoo ci biirum ndeyam ku ni faxaal xaraftu maayun fi xo xansa sàbb yu xayra la ba ni ndax googule gone xam ngeen lu ko mën a jariñ lu dul am soow mu ni wallaahi in lam yar dax sa yàkkoonu mayitan bu nàmput mën naa nekkub néew mu ni wa kay fatar da ul lam taraa ndax jigéen nag mën naa nàmpal ku mu gisut jigéen mënta nàmpal ku mu gisut sëriñ baa nga gabon yaa nga waalo wala serigne ba nga Touba dañ wom mat ba nga ag ñu ne la ki jébbalul ci mom nga jébbalu ci mom ci bisab magal ga wala bisab ngan ga wala bisab fet ga wala wala wala fa ngeen dajé ya xam fu mënti doon nga jébbalu ku dem sa kër tok ni amna naa ab sëriñ sëriñ Touba ni la ndax jigéen nak mën na nampal ku mu gisut te xalé bu dogu juddu bu nampul mën na nek ku dé kon murit yi li ci ëpp war nañ sëriñ Touba parce que la mu tracé noonu est-ce def nañ ko dañ ci war a seetaat suñu bopp nan la demee loolu waaw léegi nag mu ne wa ahlamoo anna sabila si kasura labana ummihi laa yaf nii labana xaawa kullu man radaha kaana xawiyan wa aaxilan nee na ndey bu ameem soow nangoo nàmpal am jotug nàmpal loolu du sëriñu star yi léegi de hmm? nga jëbalu ci moom muy xool looy liggéey loo am loo ñàkk loo tële loo xam boobu sëriñ moom nee na soow ma dafa murle wala boog sax it tey jamono ji jàpp na ko ba mënta am ci taalibe bi benn weer wenn weer woo xamante ni taalibe bi mu nangul njëbbal taxawu ko moom seetal yi erreur waye nak dafa waxoon ni yoon wi day de di dekki parce que kullu man mata min arbaabi tariixati fa mahallu wafaatihi nee na képp ku ray ben ponk ci ponk tariixa bi bo bu la barab tariixa ba deewe na fa ta tariixa bi al iman bi tawhid wal islam bil fiqhiya wal ihsan bi tasufiyya ما مقصدهم ni يريدون وجه الله تعالى الكريم kariimi xëy na bi ñuy dugg nee nañ temps bi jeex na mënuñoo jàll li ñu bëgg a wax dëgg yàlla bu ñu ko bëggee développer lépp du fi xaj waaye li ñu bëggoon a wax daal mooy ñii nga xamante ni tey nàmp nañu ci soow te ndey ji nu nàmpal am na jot te nangu nam te neex nam soow am nañu kattan amam xel feral nañ leen rikk nañu góorgóorlu ba bu nu maq suuf xamalan mooy maq suuf si mooy àdduna bu bon bii ñii fi nekk tey di lambar lambari nii na ma yàlla jéggal wallahi wal karim bu leen leen def nawle bu leen leen maslanteeg ñoom parce que laa yataqisal mu'minina al kafirina awliya min dooni mu'minina ki war Serigne Touba war yu weex tàll yow nga wëlbati ko def ko nawle di maslanteeg moom dalay woraale kon maaxamu allati amartukum bi akliha hiya tarku dunya wa ixwatuha kon ñam yi nga xamante ni moom lañu ñu ngeen lekk ko ngeen téye seen taw tawhid loolu nag li muy mën a dimbali ci jaam bi ci kilifa gi nga xamante ni tey tey mooy mooy kilifa daara ji tey yor ko ak ku mu mënti doon mooy saw ñoñ dimbali la ci ñaar muy taqwallahi ak al imaanu billahi yonent yàlla Iisaa alayhi salaam yonent bi yàlla def ko jàngal ni mu ànde woon ak aw ñoñam laxasaayam yi dañu xëy examen ko ni ko ni ko yu hal yastatihu rabbuka an yunazzila alaynaa maa'idatan mina samaa'i mu ni leen ittaqullaah in kuntum mu'miniina xaaloo gayni ko nuridu an nahkula minha wa tatma ina qulubana wa qad nahlama an qad saddaqtana wa nakunu alayha min shahidina قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين suñu borom ni ko inni mu alaykum tay rek ma wàcce len ko ndax la len Esa waxon dal na ci ñom ñoom limu li nu teg Esa mën ne kon nan leen gor lu góorgóorluwaat ci suñu tawhid te respecté yalla suñu borom ay luwaawam ndax bo demee ba ca jeexit ba dane ma xultu lahum ila ma amartani lu am solo la. yi wax alaykum mbolo mi ñoo ngi leen di ziar. di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci yéen di ziar kilifa yi nekk sunu ginnaaw ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla te di ko sàkku ci ñoom di ñaanal yàlla góor yàlla yi taxawal bés bi sunu borom guddal fan yi te wéral cër yi yàlla yàgg leen a taxaw ci maqaam bii te oyofal ko di rafetlu kàddu yi fi wàcc yëpp ñu ngi dellu sant yàlla bu baax ci liñ yàlla defal te boole ñu ko ñun ñëpp muy màkkaama bii ak cër wi ak dayo wii defalee ñu ko ci jamono ji nga xam ni jamono ju doy waar la soo xoolee àdduna fi mu toll ñàkk dal nim nekkee ci doomu aadama yi ñii xalaat yàlla sax dañ leen di wàññi nga xam ni jamono doy na waar Cheikh Moussa feeñoo ci jamono jooju góor yaa leen koy junj léegi ñëw fekk fi ku fekk fi lu ne ci ay tawat ak i matadi war ko fee jëlee ci benn baat muy laa ilaha illallah ak sekar ba ca biiram loolu doon la nga xam ni def ko ci jaam ñi fii jamono toll yombul dañ naan yomb na waaye yombul wallaahi yombul ndaxte xam yàlla walla àgg ci yàlla wala jublu yàlla wala liggéeyal yàlla sëñ bi kooku dangay ngay bàyyi lépp faaw nga fase àdduna fase ku biir lépp faaw nga ba ko faaw nga ba lépp pour mën a jublu loolu te jëmmi yàlla tax lii moo waraloon démb mag ñi bu ñu mësaan ñëw ci seexumu rab bi muy sang bu mat sang bi nga xam ne day àggale jàmm ci yàlla dañ daan bàyyi lépp ñëw dëkk ci biir barabam ngir àgg ci yàlla tey nag dangay ñëw tey ci waa kër Cheikh Moussa ak i njoñam ñu yëkkati benn baat jox la ko ba pare delloo la sa kër nga war a téye baat boobu di ko tudd mu war a raxas li muy raxas ci nga war a yéege yàlla war a yëg yàlla ba pare war a xam yàlla war a dëddu yu bari war a àgg ci lu bari. loolu yombul yombul de wallahi lazi laa ilaha illallah yombul ndaxte tawat yi dekk ci doomu aadama moo doy waar tawat yi nekk ci doomu aadama moo doy waar doomu aadama boo déggee ñaan nit dafa lëndëm dafa am lu tax nit ngay toogal nii mu lay xool nga koy xool mu lay ree nga koy ree fekk lay moom dara reewu ci nga sol yére yu weex tàll janoo moom mu lay xool di gis ay yére yu ñuul kukk loolu nit rek la ko yàlla may ndax bëtu bëyir yu bëri yi leneen ak leneen ak leneen ak leneen laxas ci doomu aadama lii taxoon bi ko sëriñ tubaa yoree bi mu yëwee jamono mu ne damay dind ñett jàngoro ñett yu nekk ci doomu aawara mu ko doon woowee fibre shirku alxasadu muy rëy ak kiñaan ak bokkaale. waaye daanaka ñett yooyu rek la lim de waaye gis nga li tilim ci doomu aadama. nit dinañ dindi réyam dindi iñaanam dindi bokkaaleem nga gis ci moom benn jikko ja nga xam ni daanaka mooy juraat yooyu yëpp muy jalousie muy jalousie gis nga gis nga tawat woowu li nit ñi bàyyiwul xel te moo yàq jamono lu yàq ci jamono ta maanaam jalousie boobu moo ko yàq te nit ñi bàyyiwuñ ci xel ndax bu nee sarax ba dugg la dafay yee ci yow xel mu ñaw ba nga da ngay foog ne sax yaa tiim ñëpp cib xalaat fekk tawat woowu moo la gane si su ko defee nag nga xam ni wallahi lazi laa ilaha illallah gis nga xam-xam bii li instant waxoon rek dinañ woo ñépp ba ñëpp wuyu si waaye lu néeway àgg xamalu tax nañ bàyyeen xel te xam ni gis nga xol Cheikh Moussa daan wax ni doon ko ñett fan la di ngeen ci dëddu dëddu gu biir waaye boo leen dellu seen na gore te gis nga ñaareelu jihaat bi moo gën a doy waar jikko yi ñu lay dàqal yëpp am na xam boo fa agaatee lépp lay gane si taxaw sa kanam nga war a wëlbatiku nag di seppi dëj yooyu waxtu boobu nag doo gis ku la ci jàppale ndax tilim gu njëkk ga ña lay wër di la taxaw ci ndab bi day bari waaye ñaareelu tilim bi du ñu yëg ni sax da tilim fofu nak ben maqam rek mo la meuna dimbali wallahi lazi laa ilaha illallah muy ragal yalla kep te ragal yalla bu nekké ci nit ñaari màndarga rek ma teyé fa di nga rousa wax wax ba nga xamni bu ko jambi déggé day déranger xel mi wala mu déranger xol bi ndax nit ci digënta xel ak xol ci lay jamo yalla ñu ngi jéggelu ci cadeau gi bu baax baax rijal bi di wax alaykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh Jangan lupa like, dañoo nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaa wax ne su ko xaar yi doon jar danaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.